Eh, ba tey ñi ngi kër Matar Diop Soubatel ah PDG Soubatel eh, tey nag eh, mu am bisu mbégte ñu bég ci lool ndax suñu grand frère la ñu seq ay teraanga seq lu bari vraiment tey yàlla dogal ñu koy may soxna muy bisu mbégte ñu koy féliciter encore une fois comme nin ko waxee buur géwél la ñu toogal buur géwél bu génération consciente buur bu Pape Diouf ku ko xam-xam ko ci moom tey PDG xewle. waa mais mbay bég nañu rek kontaan di sant mbokk internet yëpp. ak waa site internet buur géwél yëpp di am mbégte loolu nag parce que tey fi ngeen ñu fekk moom euh, bisu mbégte la bis la goo xamante ni bis la bu rëy ci ñun bis la boo xamante ni bis la boo xamante ni am na commencement mbégte bi amul fin ndax ki ñu fekk si la euh, di mataar du nit ku baax nag du nit ku am valeur du nit ku diiñ du nit ku bëgg nit mais man li ma frappé ci moom mooy dafa mën nitam mataar amul demi mesure ci nitam du demee demi mesure ku mën nitam la mbay Matar ku mën nitam la te nit nag nit nag boo mënee sa nit li war rek mooy sa bis bu jotee ñu ñëw taxaw waaw parce que bi yàlla defee Pape génn Prince Art Pape moom la dénk boppam bi mu egsee li ma gën a frappé ci moom dafa gën a boole mais xaajalewul parce que bi mu egsee daf maa woo ba ma ñëw woo xaadim leen daal di ne duma ma changé dara ci ni ngeen di doxee ndeysaan jëlaat naa lépp tegaat seen loxo doxal leen. nekk seen ginnaaw nekk seen ginnaaw ku ëmb rek a mën loolu. te nag bu doon da ko waxee sax te jëfeewu ko. ñu xam mais da ko waxee pare jëfee ko. ba pare nag Pape di nit koo xamante ni wax dëgg fa yàlla moom it du joxe bopp rocc laa mel. Mm. loo wax mu ne waxtaanee ak Matar. Mm. kon ànd bi ànd bu rafet la kon bu ñu demee ba loolu. Mm. nit kooku tey di jël soxna. vraiment dinañ bàyyi lépp lu ñuy def. ñoo ànd ak bokk ak moom bisu mbégte bi. waaw kon daal tey bëgg ngeen. tey dañuy bëggee ndax PDG moo xew nañu ak di ko ñaanal nag. sëy bi yàlla na suñu borom teg loxo. yàlla na bokk ci sëy yi barkeel yi. yàlla na fi njaboot gu barkeel topp. ah am nañ ci yaakaar dina xolam. ki ñu takkit yàlla na ko suñu boroom may moomit it wér ak gudd fan. moom muy dem bay ngénte doomam biir Kër Matar Diop suba teel. waaw loolu rek tey bisum mbégte la bisum ñaan la waaw. Pape li jóge na fi léegi ku ne xam na ni moom it xam nga fan yi dafa nekk studio nekk ci préparation yi ak événement yi bari ñuy dëbtal war ko def moo tax moom it xam nga bunuta yàgg fenn waaw mbaa mbaa xam nga ne war naa koo gis waaye da nga koy gis parce que da war a gis ah. ndax nee naa la xam nga dañu war dem Allemagne le vingt cinq duñ balaa ñoo génn dëkk bi ah. foog ngeen gisante ah kon baax na yaa ngi waaj Gambie ah waaw yow ay ah, sunu Gambie ja ay eh, sunu Gambie kon jeex na uyu le vingt quatre le vingt cinq le vingt six bii dañ koy tollanti ay sunu Gambie de. xam nga dañuy jiitu ju weer est-ce que pare ngeen pour ànd ak ñun. ah loolu ngay wax Bour Gueweul TV ñun disponible nañ pour lépp. damay lancer appel. waaw Bour Gueweul TV yéen laay waxal te fii laa ko waxee. waaw Bour Gueweul TV man ak yéen incha allahu rabbi bu Gambie gi desee un mois. dinañ ànd dugg biir Gambie. jeex na ci kattanu yàlla. ñu toj ko. toj ko wan internet yëpp li fay jeex na tàkk internet yi. niñ leen ko waxee ba tey ah ñu ngi kër PDG Maxu Suba Teel tey moom mooy takk soxna. waaw ki ñu jàkkaar lool nag euh, miin ngeen ko ci suñu écran. mais namm naa la. Serigne Mbacke Diop bëgg lu baax. kii Ndiaye rek la sant bàyyi ko ban wax ba pare moom Ndiaye la sant ni mu sant amul solo mais ziar naa la. delloo naa la ziar Mbaye Diop. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax alhamdulilah. tey ñu nekk Kër Maxu yàlla dogal muy dund ba egsi ci ñu koy may soxna muy bisu bégte di bisu bànneex nga bokk ci moom mën wax lu bari ci moom looy wax ñu lay seen waaw xanaa di sant yàlla rek di sant internet yëpp di wax encore une fois félicitation Matar Diop Soubatel yàlla nay njéglaayam lii dafa nekk loo xam te ne ñun ñëpp suñu fierté la tey ñu koy ñaanal nag yàlla na yàlla barkeelal sëy bi def ko mu nekk sëyin takkee ca aras ci barke Seydina Mohamed wax naa ko sànq rek ci jotaay bi nee naa ko yow lépp loo am rek lépp loo amagul rek moom dafa ñëwagul baax na Matar bëgg na doomu aadama Matar ñun ñëpp moo nu bokk njaboote kenn ku nekk la mu séq ak yow boo leen wéete da ngay jàpp ne yow rek la ko séqal fekk ñun ñëpp la yemale Matar taraanga ci ci ñun Matar yërmande ga dina conseiller ci lu baax Matar di defanteeg yow yu baax yoo xamante ni du bëgg sax ko ko wax kon bu amee bis bi ñun ñi ay xaritu neenam rek daje fi sa normal ñu wax li nu xam ci moom di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla wéral cëram ci barke Seydouna Mohamed li Papa Diouf seede ci moom Baakan seede ko ci moom Omaro seede ko ci moom ma seede ko ci moom li ñëpp waxee dëgg nag yàlla yàlla guddal fanam yàlla wéral ko li ma gën a neex nag ci takk gi tey suma xarit suma doomu ndey sama jigéen ajaratu bébé baas doomu alaaji yero baas ji moom la yëkkati premier njëkk a may ko mooy njëkkale mooy looloo ma ci gën a neex. tey loolu njëkk. waaw takk li neex na ma Matar mii takk neex na ma Papa Diouf teew na ku ne teew na waaye nag Bébé Baas mi ni may premier njëkk ji looloo ma gënal. lu ma am ci àddina. waaw ndax kin ko may euh, du sens ci moom it mérite la ndax dafa nekk nit koo xamante ni ci ñun mooy sunu yaay di sunu sœur di sunu soxna. di sunu lépp féete na ci ñun ñoo xamante ni ku yëkkati doom tuddee ko mbaa nga yëkkati cër bu toll ni première njëkke jox ko ko non lu mérito la sunu xarit la sunu lépp la vraiment moo tax bis bi tey daal dafa alaa daw me mais loolu maanaam euh, yàlla la daal. waaw donc vraiment daal yàlla bu ci cat dugg daal ci ci diggante bi quoi waaw dëgg la daal vraiment donc tey bu jëlee cër boobu aussi joxaat ko bébé. wax dëgg yàlla. moo ko moom waaw. moom sant daal sant bu baax a baax a baax. waaw sànni tuuti rek. donc man moom am na habitude sax di wax ci maa ngi sant yéen ñëpp di Omar Wali. Mm-hmm. Ibrahima Njambe. xam nga sunu rakk yi ñoom Ibou Laye Omar. ñu ngi sant ñëpp daal. Euh, yàlla na yàlla seen fan. kontaan naa trop mais Pape. Matar mi dafa defaat loo leen loo xamante ni. Hmm. dafa jar mbooloo mi. xam ko tamit. Hmm. xam nga bu takkee soxna. Hmm. ak ni nga mel ak moom. mu yëg ci premier njëkk li jox ko bébé baas. waaw loolu sa fàttali. loolu c' est très important pour nit ñi xam ko. Matar dafa jël premier njëkk li jox ko baas. loolu nekk loo xamante ni nag. moo ko de. dafa rëy. cër kenn du ko téye su loo ko joxee rek na nga ko dellu. kon bébé baas loolu ñu ko defal. suñu fierté la ñun ñëpp nag. ndax yow ni nga mel ak Bébé. dëggu gi. ànd bi mu sincérité dafa yàgg. moom dafa am beneen relation ak sama jabar. waaw Matar. dafa am beneen relation kii day wax ak bébé lu ma yëgul. ayca mbokk yi nuyuwaat nañu leen tey ñu ngi kër euh, PDG Makhtar Diop Soubatel euh, mu am bisu mbégte am bisu bànneex. ndax bu yàlla dogalee ngay dund ci àddina ba suñ borom dogal ñu lay may soxna loolu bisu mbégte la bisu bànneex la ñu koy félicité di ko ñaanal mu jikko te sëy bi barkeel ñu am ci njaboot gu barke ci barke Serigne Touba. naan lan jàkkaar lool duñ leen ko présenté doomu mataar jóob suba teel su ma ko mënee waxee noonu tey sa papa sa frère sa lépp ñu koy may soxna muy bisu mbégte looy wax mbokk yi. waaw euh, xanaa nuyu waa Sénégal. nuyu waa àdduna la gars yi déglu tuuti waay nuyu waa Sénégal nuyu àdduna di di am contentement rek ndaxte kii toog moom mën naa ni li nga wax la. suñu frère la suñu bàyyi la suñu xarit la. boo déggee ne lu tax ñu lim yooyu yëpp xarit la ndaxte heure bu ñu heure bu ñu ko soxlaat nañ ko gis. bàyyi la ndax mi ngi ñuy taxawoo ni bàyyi di taxawoo doomam. mag la ndax mi ngi kaf ak ñun comme mag ni muy kafe ak raqam. donc ñun feyam bi dañ ko ci ñaanal yàlla yàlla na ci am lu kawe njortam. amiin waay yàlla defal ko ci jàmm yàlla defal ko ci sutura. fii man bu ma waxul woon sax gars yi wax nañ lépp parce que fii mën naa ni maa fi gën a tuuti. donc fii gars yi wax nañu lépp moom ku yëkkati kàddu li ngay wax rek mooy baax. Matar baax na. yéeg na doomu aadama te damaa bëri man fii di damaa bari ay jikko yu ma jàng ci moom te dama koy vocal di ko wax bokk na ci jikko yoo xam ni Matar nit mënul ñëw kër nit mënul ñëw këram xiif hmm. amul boo ñëwee këram ba ni ngay ñibbee mataa dalay forcer lekk lekkal noonu looy def ni toogal lekk toogal lii loolu nit ku baax moo ko mën mm-hmm. man damay wax ak moom ne ko bi ñu xamante ba tey damay jàng jikko yu bari ci yow te du tey la ñu xamante wax naa ko ci site internet yu bari man bi may doog a fël di mm-hmm. nekk jamonoy mariage ba tey loxoom mosul jug ci man musuma xewle te ñëw ma jox ko ay bolog yu bari mu jënd ko mayaat ma ko ne ma may ko say fan sa donc tey mën naa ni euh, gilee ma ñibbiwaat gànnaar rek dëkkam la dellu moo tax bi ñu àndee di liggéey mm. dama mel ni ku nekkaat sama biir kër ndax suma mag la suma kilifa la suma xarit la suma lépp la te lépp lu ma jàpp ci àdduna daf may woo bàyyil rek la may wax ci saase damay bàyyi te lu ma digal ma def te du ma ci hésité xamala moo tax mm. parce que xam naa ne du digal lu ñaaw donc may may profité di ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal yàlla tamit xama njabootu soxnaam ñooñu tamit ñu ngi leen di remercier bu baax ndax suñu mag ji ku yëkkati soxna may ko ko mayoo ko ko li omoro naan ba max ki ci ginnaaw mooy ba max waaye doon nit ku baax nit ku oyof nit ku mën a nemmeeku doomu aadama man rek laax damay kaf ak moom appel vidéo whatsapp mais foo ko fekk elle sourit waxtaan kaf foore donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fa dem ba sali moom li ñëpp wax ci moom moo am nit ku baax la Matar mii moo tax ñu xamante mais nit ku baax la mbokkum nday Michel Guèye mbokkum nday Sagar Guèye ah jarbaat tonton bu waali balaago yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal la salaam nit ku baax nga ndax ñun suñu mag ji ku ko bëgg barke sëñ Saliou Mbacke miinante wuñu woon mais dama ko bëgg ndax mataar barke alxuraan ndax dañoo taxaw Matar ne ma ko ñoom Sali man maa fay taaw Sali ñibbi mu ne ma hee ma ne ko mu ne ma kii damaa bëgg nga jàppe ko comme sa sœur ndax man dama ko bëgg du ay musique moo ñu boole dama ko bëgg trop suma raq la boobu ba tey man tamit ma bëgg ko barke alxuraan ko karim moom mi toog lu mu nekk nekk jigéen sama xarit la tamit même bu ñu xamante bu bu yàgg su ma waree def dara wala war ko ci laaj dinaa ko ci laaj dañuy waxtaan fu ñu rombante dinañ kaf foore muy nit ku baax nii mu mel nii la mel Mari Ndiaye Fademba xam nga ñi fi teew ñëpp ñun la ñu teewal. naa moo neex a fekk Paris. maa la wax loolu ak itali jàmm rek li fi mooy li ma wax rek li li sawaay daan wax naan baax fu ne yomb na waaye baax. Paris sawaay ko wax. loolu rey na ma mais moom waxuma la Paris fii mu juddoo fii màggee fi defee fi léppam yaayam nekk fi papaam nekk fi fii la gën a baaxee barke alxuraan xam nga ne dina dem feneen te gisul ay waajuram ñu ne baax na fa waaye daa baax fii ci ay wetu waajuram yàlla na ko yàlla defal jàmm ñi fi nekk ñëpp ñu jumeaux yi xam nga suñu DG Souley Awalaay moom it ñu ngi koy nuyu jumeaux yi ñoom Prince Magour label bi yëpp bàyyi ñëf mm. suma sinapeur xam nga subatel bi yëpp artistes yëpp jaar nañ fi Bass Thioung Ibro ñëpp jaar nañ fi te ñun subateel rek lañu am mooy suñu sag mooy suñu kër mm-hmm. mooy suñu lépp kii nag moom suñu lépp la ñun amuñu ci moom sago barke alxuraanu karim amuñu ci moom sago ñuy profité waale di ko di ko ñaanal ci bis bii Matar loo bëgg yàlla na la ko suñu borom defal sëy bi yàlla yàlla nga ci am lu kawe sañ jortu yàlla nga ci gis waxuma nga ci gis ñu naan kii de sët sëtër beem la ah, mooy sa sët sëtam mooy sëtër beem yàlla nga ko gis ci barke Seydina Muhammad sañu ñu la bàyyi te laaju ñu la looy préparé fans yi luñ mën a xaar waaw instant ñi ngi studio di waajal suñu album incha allah loolu laa yëg moo tax foofu rek laa yam ñi def yëpp nag baa ñu def ko. bu ci def code. baa ñu def ci code. <laughs> gis naa bande annonce bi Joal. waaw dimanche ñi ngi war a dem Joal incha allah may waa Joal ñoom ñëpp ci code bi yëpp. nañu nañu ma xaar ci stade bi. fii di Diop ak waa 5 étoiles ak waa Fajarteel. Mm-hmm. ah ñëw yëngal ba mu baax. dégg naa li nekk studio am na ci son bu doy waar. bu baax waa mais kuy <laughs> fenn <laughs> ah. mais Fatima mais am ko mais buur man li may waaj ko koy waxee buur gi xanaa da ngay <laughs> da ngay taxaw ci palanteer naa daal wax naa la dégg naa ci am na ci son boo xam ne génnagut mais bu génnee tukkalaadu. ñu ngi waaj lu garaw te loolu yëpp pour soppe la. loolu yëpp pour sénégalais la ginnaaw bi ñu defee ni ñu mel. ñun ñoo ci def nag liggéey pour. def sa digganteeg ñoom fans yi ndax dañuy gis bu Sidi di way ak lii leen Sidi jaral. waaw man tuddee ma leen sa ay fans maintenant c'est la famille. famille la ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. waaw gis nga bu may joué tous les samedi five ni ñuy mel donc maa ngi leen di jox tamit rendez-vous samedi bi incha allah five mag ndaw góor ak jigéen ñëpp maa ngi leen di woo foofu ci five dimanche ma ànd ak sama mag buur géwél dem Joal ñu yëngal ko ba mu yëngu coow li jeex Joal dana maa la ko wax merci beaucoup aussi buur géwél suma xarit la suma frère la te dañoo yàgg nag wax na lu am solo buur dañoo yàgg lool waaw buur dañoo yàgg lool depuis suma début carrière mi ngi may gunge mm-hmm. waaw te yàlla bu mu fi yam waaw jërëjëf moo frère. bég nañu merci beaucoup. kii ni leen ko waxee tey PDG mooy mooy marié mooy takk jabar Matar Diop suba teel ah jumeaux yi nag kenn ki laa toogal nii ah doomu ndey nuyu naa la. waaw ma lay ziar wër. mais tey directeur tey moo xewle. waaw waaw waaw tey nag directeur moo xewle di Matar Diop. nekk sunu grand frère. nekk sunu xarit. mu jël ay responsabilités yu mag a mag teg ko sunu loxo. ñu jiite label bi Subatel Musique mu nekk grand bu baax grand bi nga xamante ne depuis bi ñu xamee bi ñu ko xamee ba tey mësta changé du nar du xuloo du def dara toujours rek danaan doxal leen tey nag mu xewle di war a jël soxna moo tax tey ñu def suñu délégation ñun ñëpp ñëw fii pour euh, jàppale ko ci bis bi franchement dafa nekk nit koo xamante ne nit ku baax la nit ku bëgg liggéey nit ku bëgg tamit jeunes yu jeunes yu liggéey la ci waaj mi ngi koy wax sànq rek naan xoolal fii ñi ñi ñi fi toog ñëpp moo leen def ay millionnaire ñiy dégg ci réew mi te moom dafa nekk nit ku réservé wu koo xamante ne doo ko dégg ci dara doo ko dégg ci coow doo ko doo ko dégg ci xuloo doo ko dégg ci dara foo ko fekk rek wax mooy du la du la may jën da lay jàngal ni nappe teg la ci yoon teg la ci yoon noonu lay def noonu lay def ay rakkam yu bari da lay jàngal ni ñuy nappee boo yëkkati di ko jox sax mooy la déedéet dama nga jox ko say waajur dama nga jox ko say waajur moom da koy jox sax mu lay dolli leew nan na la am dolli ci lii nga am jox ko say waajur xam nga loolu bariwul si nit di ko def jamono ji toll nii moo tax dañ koy ñaanal yàlla rek gudd fan di ko ñaanal wér li euh, projet yi nekk ci kanamam incha allah euh, yëpp nekk réussite totale. waaw ñu ngi waajal nag ñu ngi waajal ay affaire yu bëree bari jamono ji xam naa ne buñ demee ba mu gën a jege rek. dinañ tegal programme bi incha allah. waaw incha ñu ngi ci nekk di ko liggéey nii boobu. daal teel mi ngi waaj yu doy waar sax. yu deewaar waar yu doy ñu ngi ci waaw waaw waaw dañ ci def code. dañ ci def code noonu waaw. <laughs> mais Demba ngi nii Demba ngi nii président euh, tey bi grand bi moo xew la ah, PDG Subatel Musique euh, seen grand frère seen lépp tey moom la nii may soxna muy bisu mbégte. waaw mooy li nga wax rek bis moom bisu mbégte la quoi xam nga ñun moom mu ne wuñu wax. Mhm. mais tey moom bés bi nekk na bés boo xam ne grand dañ ko ko yéene quoi parce que moom sunu mag la nekk sunu kilifa xam nga mhm. uuf ñëpp nag. bëgguñu def ñu def ñu comme ay raqam yu mu bokkal nday ak baay. waaw kon boo xewlee rek mënul ñàkk ñu ñëw xam nga def suñu teewaay. xam nga ñaanal ko nag bés bi. nekk bés bu gën ci bés yi. yàlla bàyyi kaak soxna si may ko njaboot bu barkeel loolu rek lañ koy ñaanal ko amiin waay loolu lañ koy ngeen gisu grand waaw mais ñëpp kontaan bésu mbégte la. waaw moo tax mënul ñàkk ñu déplacé wu. waaw waaw ñëpp ku ko yéene ñëpp ko yéene lu baax ndax moom ku mu gis rek. da yéene lu baax ku mu gis dalay lay def comme boppam. ku mu gis lu mu yor da koy bokk ak yow ba pare di la conseiller man moom dafa maa def comme raqam barke alxuraan da lay conseiller ah la defal nii defal naa xam nga yéene la boppam daal kon dañ koy ñaanal rek ñi fi nekk ñëpp ñu fi ñëw ñëpp wax dëgg yàlla ay nitam lañ parce que moom moo ñu ko ji daal waaw ah, kon dañ koy ñaanal rek li mu am ren yàlla na ko gënal fuuf amiin xam nga bii ñëw tamit waaw ah, am jàmm rek